nuyu nañu leen alaykum yéen ngi ànd ak Al Irshad TV alors tey dañuy jàngat lu bëri loo xam dañuy creuser pour jéem a découvrir ak itam defal leen ay orientation ngir gën a mën comprendre Sénégal nan lay doxee nekkate li nga xam ni mooy hymne national bu Sénégal posez-vous vos corps frappe les fond alors nekkate Sénégal moomu ko Léopold Sédar Senghor moo ko oui parce que dafa signé woon ak état bu Sénégal nous nangul le valider koko ni mom bu 70 ko fay lu ans nga chaque année Sénégal dañu dañu ko fay lu tollu ci ben milliard ak nous million un milliard 100 millions dañu koy fay Léopold Senghor ndax nga yombul ci ay message maçonnique

70 euh, ans après la mort de Senghor c'est-à-dire de 2001 bu mu jusqu'à 2071 Sénégal na ko def man top à koy topp at bu di Sénégal di fay waaye gis naa ni Sénégal dina fay 1 milliard 100 millions chaque année donc Fabien pour Sédar Senghor donc su wax quelque chose qui appartient à tout un peuple et que ben nit le traduire affecte ben nit le véhiculer ba paré ben nit lañ koy fay njabootam damay né lolu c'est pas national ça ça concerne pas le peuple waaye hymne national bi soo xoolee début ba ba fin donc euh, wax yi si moom dafa am ay passages yu bëri yoo xam ne passage yooyu boo koy topp ci téere yi nga xam ne ñoom ay franc-maçon lañu ku mel ni euh, Alain Bower wala bokk Roger Dachez ñoom ñaar ñoo bind benn téere tuddee ko les symboles de la franc-maçonnerie ñoom ñaar ay franc-maçon lañu kenn ki Alain Bower sax moo nekkoon vénérable maître bu Grand Orient bu France di nga ci fekk ay baat yoo xam ne mu ngi suñu biir constitution nga xam ne baat yooyu franc-maçon yi ñoo ko moom moo tax may loolu doy na waar loolu bettuñu parce que jabar bu njëkk bu Léopold Sédar Senghor ndax moom am na ñaari soxna la mujj am jabaram bu njëkk mooy franc-maçon bu gënoon mag si jigéen yu nekk fi Afrique mu tudd Ginette Eboué doomu Félix Eboué bu nekkoon gouverneur AF la donc yaa y a beaucoup de beaucoup de textes maçonniques xam ne man gëm naa ni Senghor daf ko def parce que Senghor ñun gis xamuñu appartenance am si benn loge maçonnique bokkut ak ñoom Abdou Diouf ak ñoom Abdoulaye Wade nga xam ne dañ leen tudd ci biir maçonnerie Senghor moom tudd ñu ko ci benn loge maçonnique waaye sëy naag franc-maçon bu mag a mag tey franc-maçon ngemb nañ ko jox ko seen alal jàppale ko pour def ko président jàpp naa ni kon fayum leen fay la rek leen jukkal si biir suñu biir euh, suñu biir hymne national donc euh, ténèbres di mu fiy expliqué euh, les lumières sur les terres yëpp wax la yoo xam ne sooy seet discours franc-maçon yi ça revient donc suñu hymne moom

par rapport ak suñu national bi nga xam ne Senghor mu ngi ko bind 1960 da nga xam ne kon su toppandoo amee kon Senghor moo toppandoo si bu toppandoo amee bu fekkee nag delloo njukkal la kon moom moo delloo njukkal ñee ndax ñee ñoo moom baat yooyu te baat yooyu ñu ngi gis topp nañ ko si hymne national yi xam ne ëpp na fukki baat ndax hymne national Sénégal cinq couplets la dèjà nee naa hymne national bu gën a ñàkk xorom ci ci Afrique la bokk hymne bu ñàkk fayda la ibn bi nga xam galvanisé wul un peuple hymne bi doo ko dégg sax am lu fouetté li ci yow sa wàllu histoire sa wàllu ay maam ñan ñooy sa ay maam fan nga bàyyeekoo boo demee jël hymne Algérie wala hymne hymne yeneen dëkk yi nga xam ne c'est de grande nation nga xam ne ay xeexkat dañoo xeex ba jox seen bopp boo déggee seen hymne dangay da ngay am envie sax jug dem xeex ji ndax hymne bi daf lay galvaniser ñu si hymne lay daf lay fooloo hymne caaxaan la hymne bu ñàkk solo la hymne bu gudd la mooy hymne bu gën a gudd sax fii si à part xanaa hymne bu Afrique du Sud moy hymne bu gëna gudd 5 couplet la bi xamé néw na nga gis xalé bu ko mokkal ba ci ay max sax. des fois man euh Sénégal toi le toi comme le fils du l'écume le fils du lion euh, toi sujet de la nuit au galop des cheveux ñu ma la ngay wax. mais rends-nous au oh, rends-nous l'honneur l'espoir de nos ancêtres ñu ne ma ñun xamuñu la ngay wax ma leen pourtant li ñu ne ma non da nga utiliser ton hymne national mais ça c'est pas l'hymne parce que ñom hymne bi mu ngi jeexee ci premier couplet bi ak refrain am ma pourtant hymne bi 5 5 couplet la donc pour dire que. quelque bi xamni ki qui est censé te parler te yow xamuloo ko sax li Sénégal mo réussir li mom aduna bi yépp ñëpp a seen hymne parce que hymne dafa gatt day wax ak ñom daf leen ni fouté buñ ko déggé ñam am déglu ko parce que xamna ni ki samay mam lay wax sama askan lay wax ñun suñu national waxul suñu mam tuddul suñu benn mam magal suñu benn ndanan te Sénégal ñakul ay ndan yi xam wax xex Sénégal dafa mësa am ay résistant dafa mësa am ay jambar yi xam dañu taxaw lu tubab bi dañu xex dañu joxe seen bakkan ñu bëd dañu dee mais Sénégal rendul hommage noonu dafa mel ñu ni yembar yi Sénégal yembar yi la ñuy jël di leen màggal leen delloo njukkal ak ñi xam ne ñoom ñooy doon nogatu di ñu dóor waaye ñi xeex ak ñu dee ngir Sénégal Sénégal fàtt na leen. Cheikh Oumar Diagne professeur ñu xam ko lool ci njàmbaarteem gëstum ak itam révélation yu am solo te dëggu yi nga xam ni ci lay yee Sénégalais yi ñu ngi koy ziar di ko di ko jaajëfal bu baax ci taxawaay bi. beneen révélation de taille ci Sénégal ak diwlin Sénégal ak gerte naxaate yi nekk ci Sonacos ak lëndëm tek ndëng te gi nekk ci Sonacos jaadu nañu leeral ko lan motax tax Sénégal mënut am avantage wala benn bénéfice ci gerte te itam diwlin di continuer cher ñu continuer di bluff di gëlëmal suñu autorité ci existence su Sonacos fi ci Sénégal explication Alpha Diallo pour ngeen comprendre deug deug mu orienter len ci lëndëm te gi ñu ba Sénégal tey. autorité daf ne 3,5 kg mo lay jox 1 litre diwlin. Mm-hmm.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 la compensation. Moi, par exemple, comme le président a toujours cet exemple, Mouné, y a 1 kg de guerre et il y a 1 litre. Mm -hmm. Il y a 1 de 1050 francs. Mhm. Président, -hmm. président, selon sa logique, si vous avez 1050, si vous avez 1 litre, vous pouvez le 1050. Bon, si vous ne savez pas, wow. Mais, à la a un racal. Il y a 2 kg de racal. Si vous avez 500, pat bi 1 kilo 300 ñoom ñaar boo leen boolee du 800. Mhm. su ma ko génnee ci 1050 yi lay dëwlin bi 250 la war a jar. man maa ngi doon jaayee Sonacos dëwlin ba ci buntu usine am 400 francs CFA litre dëwlin xanaa lu mu jaayee 400 mën na ko lu mu jëndee 400 mën na ko jaayee 1200. du dëgg. Mhm. ñu demaat plus loin. mu jox ma gerte toujours si logique bi mu jox président bi de. temps yooyu collaboré wu ma directement dafa amone un prestataire bo xam dafa ma dan jox makay makay livrer mu jox ma 40 tonnes nema jox ma comme par exemple li wax président bi comme 3 kilos 3 kilos xaj bi moy joxe 1 litre mu calculer ko ne ko ci 40 tonnes li lii nga ma wara jox mu jox mu liggéey ba pare ma jox ko ay diwlinam mais je me suis retrouvé ak 1800 litres diwlin yu nek sama loxo hmm? ak 3 tonnes ràkkal bon comme nak du sama alal fay nañ ma.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 kon donc li tax dëwlin gerte mënul jar Sénégal moins de 1200 président parce que huile de huile de qualité du parce que les coûts de production de la Sonacos sont excessifs. wax naa ko waxati ko dëwlin 3,5 kg génnewul dëwlin rek li muy génn day génn ràkkal day génn pat day génn xottu gerte loolu c'est des intrants pour d'autres entreprises. boo jëlee 1 million 1 milliard 600 millions de ko fomper sa machine da ngay am problème.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 xol li gerte bi lay commencé am ñu jaay tonnes bu mu am millions. au nom de quoi mais oh, justement lool l'a au nom de quoi F Diagne moy dimbali jox numéro Fadal. muy wax gis nga gis nga man. bu ko mënul président bi yéne dawlinu mënul Sénégal 1150. oh là là tonnes gerte. moy

Et c'est extraordinaire ce qui se passe dans ce pays. C'est grave, non c'est scandaleux. Sincèrement, c'est scandaleux en fait. Mami, 40 tonnes de ma ça jox sama conseil 2 millions. 40 tonnes vous ma jox. 2 millions. parce que 2 millions après si mal l'ai féete Moi, kële li mu doon wax borom 2 millions si man l'ai féete. Uh-huh. année 50 000 tonnes donc perdre na 2 milliards 380 millions 958 francs tout ça c'est des chiffres qui xamante beaucoup divisé par le nombre total de bidons da ngay que le ni prix bi mën de 1800 à 1200. et puis et puis bu ñu ak le président de la République duñ ko wax dëgg quoi. Mm-hmm. looloo ci neex gis nga ci kii bi président 3 kilos le bëggoon wax. Diagne Fada ne ko non si si concertation bi ne ko non C'est 3,5 kilos Je ne ko c'est cet ignorant là. que <laughs> Alpha Diallo Baye vous comprendre sax da ngay xam ni ñi jiite woon Sénégal dañuy fowee Sénégalais yi. question question bu am solo C'est donte woon ni dañu bok ci coalition jomay 2024 mais xeyna nous am luñu leen denk ci alalu askan wi ci que nguru Macky bu fekke que kenn ko xamni mus nga ci def genn kenn du la falat tous lo xamni askan wi fay nekk ci sa loxo misalu maître Moussa Diop misalu yeneen taskatu xibaar yi genn doon waxte doon mim rapport IGF bi nga mon Mansour ci Prodac en tout cas chroniqueur bi du Cheikh Omar euh, Cheikh Ousmane Touré Ragné ko ci position bi nga xam amna ko muy dëggu gi ak djubal gi lolé moy position bi nga xam amna ko ci ñi ñuy nommé ci poste yi képp ku musoon a jaar jalgati wala surtout génn ci rapport bi nañu la exclure complètement ci lu ask Sénégal moom ma jàpp mooy pend kenn ci ñi rapport yi épinglé mhm. waratul am ben poste électif hein ci réew mi man dama japp ni ñi ñu épingler ci rapport yi si c'est justifié manam confirmer nañ ni ñoo def délit yi kenn ci ñoom waratul mën a am benn activité bu ko permettre mu nekkaat ci benn poste de responsabilité bu muy gérer l' argent du du contribuable ah, moom bu ñu ko dénkee moom les gens vont s'opposer mettre mhm. Moussa Diop kenn waru ko nommer dara fekk lii leeragut fi mu toll nii man loolu laa d'accord d'accord dafa wedd ñu bari bari bari bari daf leen a waxloo safaan les responsabilités sont partagées dama gëm ne tey. Hmm. les juges qui ont condamné Ousmane Sonko sur l'affaire affaire pour diffamation hmm. doivent rendre compte. ah, ah ñoo ne dañ ko condamné sur la base. Hmm. maanaam d'une diffamation comme quoi rapport yi bi mu invoqué amut ils doivent rendre compte parce que lolu dafa am des morts dafa des blessés dafa des dégâts matériels Nous ñom am prérogative def une euh, mu def investigation pour xam ndax rapport amna wala amul. Mhm. su féké yow rapport bi xamoon nga né am nga nga condamné nit condamnation pour jur des morts des dégâts matériels des blessés sanction de la war est-ce que xamoon nañ ko fi lañ dégg Cheikh Yérim bo waxone juge nga Yérim waxone na fi laajte nañu ndax rapport am nañu ne rapport am. nga Yérim waxone nañ ne juge yi auto saisir IGF. Mm-hmm. ak IGE. ngir xam nak rapport amna wala am ñu ko rapport am xana mm-hmm. Yérim Seck mom réew mi dootuñ ko talal micro diko ko laaj avion xana non lolu moy euh, image bu Sénégal dégg ngeen révélation yi fi génn bayé ko ci Cheikh Omar tiagne ci hymne national bi fi Léopold sada Senghor bayé nekk te at mu nek

ñu yëg ni def nga ci ak jalgati ak koo ma di doon kenn du la confié waat tous lu askan wi moom parce que nag duñ jox kenn alalu askan wi mu koy fawee di ngeen ci ñetti réaction suñu intervenant yi àndoona ñun ci seen émission orientation ci Al Irshad TV ñu ngi leen di jaajëfal bu baax ci ànd beeg bàyyi xel beeg topp gi abonné leen suñu chaine te bés ci cloche de notification bi mooy li tax vidéo bu ñu dugal nga bokk ci ñi koy jëkk a déglu ak di ko jëkk seetaan jàpp itam seen abonnement mooy li ñu gën a dooleel bu ne bu ngeen amee xemmem teefu gën a kantanal jàppale dooleel itam Al Irshad TV maa ngi leen di jox dox daje ëllëg ak jàmm incha allah